suñu site bi di diaspora 221 amati mbégte contentement di ànd ak yéen ci suñu programme comme ni ngeen ko xamee tey nag spécial plateau Tap tab seen la ñu doon am ak ki nga xamante ni mooy woykat bu mag bi di Keba sekk bu nga xamante ni jamono ci wax dëgg na neex yàlla suñu boroom nag wax dëgg neex yàlla euh, euh, fencal na ay bidéoom comme ni ko sénégalais yi di waxee macha allah samay catu làmmiñ ak samay catal morom alors moom nag nee na Keba waaye rek lay def ko. nit yi ñoo ko wax ci noonee nag ñun waa Tab Tab seen ñun waa diaspora 221 gis ne àdduna bi bëgg nañ ko Sénégal bëgg nañ ko ñu ànd ak moom tey ñu war a def nag li nga xamante ni mooy trois sons yoo xam ne da bëgg lay sénégalais yi balaa ñuy nuyoo mën ak moom dama koy daal di bàyyi moom Keba Seck mu dem def rek premier morceau bi nga xamante ni moom la jagleel waa Tab Tab seen ñu ñëwaat ak moom ci plateau bi.

a a bees day neex a mel ni seen mi ngi Sénégal indi nañ leen ko transfert d'argent bu neex tap tap seen Issa mama, sugar.

alors Kéba. Euh, mm-hmm. ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. gis nañ premier morceau bi nga xamante ni moom nga jagleel li nga xamante ni mooy waa Tap Tap Seen. Mm-hmm. balaa boobu nag dama lay daal di bàyyi nga nuyoo mokk senegal yi lay seetaan Kéba ñoo ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar di nuyu ñëpp ñuy seetaan. Mm-hmm. di leen nuyu bu baax yow. ak waa euh, diaspora bi. donc di nuyu ñi sama technicien. sa technicien yi ak technicien ba ca téléphone ba. waaw. <laughs> Sacha waaw Sacha di nuyu Sacha bu baax moom it dama accueil bi dafa rafet. Mm-hmm. et que maa ngi am contentement lool di leen wax. merci beaucoup et que encore une fois merci ci soit bi ngeen def. Mm-hmm. Euh, maa ngi war ci ànd ak yéen ci euh, tap tap bi nga xam ne macha allah ñë dikk na te dikkul ndànk. Mm. am na lu mu dikkee nag. te xam na ne non dina bomb. dina bomb dina bomb incha allah nga defal ñu morceau bi nga xamante ne dinga ko ko jagleel spécial euh, ba ngay way morceau bi. Mhm. dañ nga gis nga ànd ak allure bu am doole lan moo waral loolu. waaw bon bari na xam nga loolu ay ça dépend. Mhm. def ay feeling la yuy ñëw. Mhm. wala boog euh, sama xel dem ci li ma fekk mooy accueil bi ma dox nii. chaleur bi ngeen ma jox def euh, yéen waa Tap Tap Seen jas ak Babacar Diaspora nga xam ne ku baax sama xel boobu. waa dëgg yàlla am yéene ci man lool donc xam naa loolu dafa ñëw naturellement. Mm. musique bi neex son bi neex rek. Mm-hmm. hop dina defati it comme yeneen morceau yi. ah incha allah incha allah nañ ko nañ ko nañ ko bàyyi ci loxol borom bi. d'accord gannaaw yàlla yàlla ñëw na. waaw yàlla ñëw na de. waaye moom biddew bi boobu. biddew. ah fenk na macha allah. waxal macha ah, wax naa ko man kay balaa nga wax naa ko. <laughs> ak yeneen macha allah sénégalais yi. Euh, bisimilah. alors Kéba di la fàttali xool deuxième morceau bi ñu toogaat yow ci plateau bi. soyaroyo man caawar dagay jël neegu tey ma dagay jël mbaaj yu ma jël karawaasumul ma ngay te jël bii dogi yar ma Yaasin Lo Yaasin yëkkati ca Yaasin day tuuti loo Xadi loo ma nga bare léegi yow looy rey. Kéba li nga fi woy dafa neex. léegi yow looy rey. mais li nga woy fii boo neex. ah d'accord ok Kéba woy fu mu toll nii moom may yëngal. acca deuxième morceau bi ñu décortiquer ko. Mm-hmm. acca deuxième morceau boo ma koy décortiquer lan nga ma ciy wax. deuxième morceau bi bi ma la koy décortiquer. waaw décortiquer ma ko. décortiquer moom Kéba temps yi da nga waane nag. décortiquer wuy ma na naturel rek. fu mu toll nii xoolal. ah njar ko. njar c'est-à-dire. mais far. dafa far. waaw instant dafa far. dafa dosé ko dafa dosé. ah bu dosé. ci lay ci ci lay pour man ci yow doo rek la yow mii. yow ko yow nekk sa ni nga mel man xaw ma la woon ah. deuxième morceau bi. waaw comme premier morceau comme dañ koy jox juste li mu laaj. li fi indi moom xam nga xam naa ko. Mhm. Euh, il faut ñu nekk ci loolu. waaw dafay constater. à part ses sponsors ses sponsors. waaw tap tap seen lay. concerné. waaw donc transfert d' argent bu am solo boobu nga xam ne dikk na. Mhm. te ba ngay bomb ca Europe Asie. Mhm. États-Unis mhm. Ah, donc Sénégal. moom il faut ñu jël seen wàll. il faut ñu jël seen wàll excellent ñu ñëw ci ñu ànd ak deux heures. alors balaa ambassadeurs yi dañ la bëgg a jëpp trois morceaux ban réaction nga ci njëkk am euh, ci premier transfert d' bu la contacter. waaw euh, pour dire vrai bi mooy premier euh, transfert d'argent wala boog première euh, boîte ou société. Mhm. bu ma contacter pour ñu def lu mel nii. ok loolu dafay neex ci xol di wane ni kon am na fu ñu toll ba tax ñoom ñu def choix bi ci man. ça fait vraiment plaisir maa ngi contentement lool encore une fois di leen remercier di leen wax merci beaucoup yàlla na ànd bi yàgg te sax. mais dafa neex ci xol. Mhm. Hmm? alors tey nga gis affaire yi nu mu yombee. efficace am am sécurité parce que mhm. sànq ñoo ngi ci doon waxtaan man ak yow ñu ne la boo nekkee Canada wala nga nekk États-Unis wala mhm. Royaume-Uni mhm. boo yónnee doomu sénégalais yi doo fay lan ngay wax ci loolu boo yónnee doomu Sénégal boo doo fay dara bu fekkee yaa ngi États-Unis Canada ba ci Royaume-Uni. Mhm. boo yónnee xaalis fii Sénégal c' est loolu cokkati na di. cokkati na di noonu la ah. fa demee. ñii la demee. ah oui même bu dee somme bu élevé lu mu élevé élevé. lu mu munti toll. doo fay dara. boo koy yónnee nga nekk États-Unis wala Canada. Eh? doo fay envoi bi c' est gratuit. notez-le bien. waaw yéen a ngi koy dégg. ci fi nee mm. ak waa tap tap seen. Mm-hmm. doo fay nada. nada. nada. nada. cikini. bu dee yaa ngi ci zone boobu. Ah. mais beneen bi tamit Kéba hmm. bëgg naa nga wax ca gars yi parce que boo nekkee ci zone Europe bi. Hmm. muy France di Allemagne di Italie. envoi bi na nekk quarante milliards. Hmm. somme bu mu munti toll. ah ouais 2 euros lay fay xanaa boobu nan la. noo ko da nga jiw wala bu fekkee yaa ci zone Europe bi. waaw ngay nekk France Europe waaw. Oh. <laughs> que nga nekk France. Ah. nga nekk Italie. Eh. que nga nekk Allemagne. Eh. quel soit le montant. Mm-hmm. deux euros kese ngay fay foofu. te deux euros deux euros c' est du tout. c' du tout. alors que même boo envoyé mille francs. mille francs deux euros c' du tout. wax ma la ak wax ma la ak somme lu mu élevé élevé. Mm-hmm. bàyyi leen ci xel. bàyyi ci xel beneen bi may tëjee nag ci Tap Tap Send mooy buñ la ko yónneewee. Mm-hmm. d' habitude pour nga dem ci agence yi. di dem jëli sa xaalis day nekk problème. mais fii ku nekk xam na ni Orange Money jege na la. moo Money jege na la. ndax kër koñ boo dem fekk nga fi orange money léegi bu ñu la ko yónneewee nga nekk Sénégal dangay dem rek directement récupérer ko par orange money wala wala Wizall money lay wax ci loolu. ah dañu dañu dañu dañu nekk en collaboration. effectivement. fusionné fusionné. nga ni. waaw boobu itam looy fay. rien du tout. non da ngay jot sa xaalis rek dem récupérer ci PayPal. comme ça comme ça. bàyyi uyu ma bàyyi wàcc xel. ñu bàyyi wàcc xel comme ñoom ñett yëpp nañ ci bàyyi xel. ah lii dafa neex di. waaw neex na. lii moom amul lu mu coxewut. amul lu mu coxewut. laay la la mais naka la nit ñi def pour euh, te moom may posé question bii moom. laaj ma naka la nit ñi def pour bokk ci am application Tap Tap Send. c'est très facile. soit bu fekkee da nga yor Android. Android. boo yoree Android c'est quoi Android. <laughs> oui ba boo yoree Android. da ngay dem ci Play Play Store. waaw ah, demee ci Play Store nga télécharge Tap Tap Send. Ah, application bi ñëw. ku nekk xam na ni boo yore iPhone App Store ngay dem. Mhm. boo fa demee tamit nga télécharge nga am sa application. doo ko doo gën a leeral mu gën a leer ci gars yi ñu seetaan. mën na nekk bu fekkee Android nga yor. maa ngi jàpp liggéey waaw waaw yow da nga baax. boo yoree Android. Ah. da ngay da ngay dem ci Play Store. nga mhm. tàppe Tap Tap Send. Mhm. nga wàcce am ko sa sa téléphone. bu fekkee yaa ngi yor iPhone. nga dem ci Apple Store. nga téléchargé ko mu wàcc sa téléphone. kon yaa ngi ci biir Tap Tap Seen. jeex na ñu dem xool troisième morceau bi ñu daal di fa. sama yaay sori na ma man sama baay sori na ma kile kamara kamara ile baba damay dem bandar ge seti mina mina masamba kamara تقبل لي منا كمرة إلي بابا أيا يومنا ويا ولا منا منا Sidi Anta Ndiaye Sidi Anta Ndiaye Sidi Anta Ndiaye Seex Fallu na iyo bay si ñëlaat la meena fan ma jiiboor di sa yaay la njoor di sa maam faat ma baram na sa maam yo wa ba fodele mula lati jo bi degen bay jor de ma degen bay de ma isa degen bay balagu gude ma ci lebu ndakaaru njaay sabaliwul waaye ku mënul te bawul laajul tey dem lu yàqu moo loolu yógee ba yow de dara ci nga lu ma neex si yow yaa di xool li doxal réew mi waaye ku mënul dabawul laajul day dem bu yàqu moomoolu mu yokkee ba yow da yàqoo dara doxal waay ci baara sagal na la yayi kolle jaagu na matu i liggéey tagaragen léppul mbalina mbalira darajay Sëriñ wa del herido kon Lamine Lamine nay baara baara yi Lamine Keba maa ngi ñàkk fu mu toll nii. li ngay woy yëpp maa ngi fecc. Ah. xam nga man yii may seen euh, laa gis nag mu mu xaw a mais fi toog moom moom ma ngay dem. lu moom ma ngi neex. waaw ah, gis moom moom sasa ko dafa garaaw. mais dafa mel ni yéen ñaareem nag yéen ñaareel ba garaaw. yàgg nga ñëw seen de ah. Eh, seen naa naa. seen yi fu mu toll nii nag son yi jeex na. Mm-hmm. say trois mots sa matal nga ko. Mm-hmm. say contrat moom respecté nga ko. Mm. wax dëgg na xëy tap tap seen. journée remplie waaw journée ah, alors alors ce troisième morceau bi ban ban son ban son la ak nga décortiquer ñu ko également. ban son la bon son bi troisième morceau bi moom mooy bon booy xool dafay concerner lébu gi. lébu gi maanaam képp kuy nga woy ci lébu yi. waaw képp kuy lébu. Mhm. te xam nga lébu yu moom macha allah dañ dañ ko dañ leen di woowee. dégg naa ñoom moom Sénégal lébu waaw lébu borom Ndakaaru Njaay. waaw ñoom moom Ndakaaru. waaw ñoom dañ fee bëri doole seet ci seeni maam la jógee xam naa dañoo gënoon muus ñenn ñi. xëy na loolu laa dégg ñoom ñu profité. waaw lébu yi da nga yi daal ñu ngi noonu rek. <laughs> Eh, ñoom ñoo moom Dakar nag. ñoo moom Dakar moo tax way nga leen. yow tamit gaa yi ne fi mu toll nii yaa moom Sénégal. maa moom lan. Sénégal ah waaw waxu gars yi la man fi mu toll nii nag lépp lu ma fi wax bu jàpp na sama wax la hmm. gars yi nee nañ yaa moom Sénégal parce que nee na yow yaay seul artiste boo xamante ni hmm. da ngay tëgg vendredi hmm. da ngay tëgg samedi da ngay tëgg dimanche ci sa âge ñu bëri na Kéba est-ce que condition boobu mën na ko te dañuy gis à chaque fois bu ñu ñëwee vendredi da ngay plein macha allah samedi également ba ci dimanche euh, c'est quoi ton secret lan mooy sa force c'est quoi l'âge d'abord da nga ma sa âge. waaw waaw par sa âge. parce que ñu bëri dañuy jàpp ne déggu gaay foofu doon naa fa ah, bul bul jiitu foofu booy jeune talent kay. kon kay jeune talent kay nangu ah, ah, ko wax kay. comme ñoom xam Sénégal dafa am inspiration. tout à fait. man affaire bi daf ma ay lay la may def. <laughs> non ils sont très forts. <laughs> bi ma jógee dégg ñu jeune talent jeune talent. waaw nee na jeune talent nag <laughs> mënu si dara. mais loolu sa fait plaisir aussi na daal ci benn côté dafa am solo dafa neex et sa ça parle. ça parle de quoi ci lan lay wax. beaucoup de choses. am nga yow ban jàngat nga ci am yow lan. bon jàngat yi bari na am na ñoo xam ne ay ree leen def. Mhm. am na ñoo xam ne chaque jour dañu koy reetaan man mi dama koy reetaan comme nga mais lu ma lay xew ça fait plaisir nag wax tig yàlla parce que boo demee ba am fu la yàlla tollalee. Mhm. ah bañ euh, bañ les gens parlent de toi ñu ngi seetaan. ñoo xam ne xamuñu la woon ñoo xam ne bàyyiwuñu bàyyiwuñu woon la xel. léegi nit ñi ñëpp ñu am waaye ñu bari yokk déglu bi di yokk. tout à fait loolu ak cant la ak cant la rek. sant rek amul leneen du sant alors jours yi ngay tegle. waaw foofu surtout parce que dafa impressionner les dafa xaw a métti nag. xam nga mais comme c'est le boulot et que coono lañu dénk góor coono lañu dénk góor góor dafa war di euh, am lu mu jàpp loo xam ne. Euh, ñun dina am coono pour parce que ñàkk dafa am solo. dañ lay wax ne la boo liggéeyul it balaa bu weer bi dee balaa ñàkkam di feeñ na nga ko fay donc liggéey dafa am solo dañuy liggéey rek ànd ceeg am man ak sama musiciens yu baax yi. gis nga leen samay xarit lañ. tout à fait ñoom ñëpp samay lañ. xam nga c'est une famille. ak sama staff bi nga xam ne ñoom aussi dañ may yàgg ak ñoom depuis commencement. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fekk si di leen dooleel mais surtout nag avec le producteur. Jiri Ngone. ah booy booy bu garaaw bi. maam Cheikh ah, waaw booy waaw booy Tenor. war mhm. ah. ok alors Kéba est-ce que succès bi fu mu tool nii. Mhm. bii sama question la personnellement est-ce que succès bi fu mu toll nii sentir nga ko yow en personne nga toog xam ne man mii am na succès yow en personne. Eh, gannaaw bu ñu bu ñu santee nag parce que nag bu du ma wax ne amu fi quoi. parce que comme nit ñaa ngi koy wax et puis ñu ngi gis yeneen i porte loolu moo ngi lii. tout à fait donc loolu bu ñu waxee sentiruñu ko wala bokk yéeguñu ko wala bokk euh, bon dañuy dañoo dañoo wax ni rek et que booy xool ni ma sénégalais yi def et sénégalaise ah vraiment dafa neex ci biir xol parce que hmm, dama dama doon way ni rek donc yàlla moon na bañ def lii wala book mu def ko avant wala mu def ko loo xam ne xëy na dina fekk mu gën a nekk mag wala boog du fi mës a am mais moo tax ak cant la. mais yëgu ko nag. ba tey yëgoo. non yàlla moo ko yëg parce que dama bëgg reste reste toujours humble modeste et simple man xam la ma intéressé dans la vie à part liggéeyu dem liggéey jàmm la paix kaf reetaan ñëpp na jàmm. guddi fan ak wér yàlla def dara ci poos yi mais ñëpp na ci jàmm. moo ma gën a intéressé. jàmm daf ma neex waaw. c'est important waaw jàmm rek waaw. alors sànq yaa ngi wax ba tudd euh, label Jéeri Ngoone avant Jéeri Ngoone amoon na ñu la doon contacter apparemment je ne sais pas. Euh, euh, hmm. sa sa duggu Jéeri Ngoone fa la yàlla tuddee ni pratiquement que ni bës bi fa lay fa lay fa lay dooree. ah kon Jéeri Ngoone ah mais ah ci lu ñu gis la ñuy mën a wax. après nag yaay confirmé wala nga bañ a dama jox benn benn anecdote xam nga ba démb. waaw ah. maak maam Cheikh Jéeri Ngoone hmm. dañ koy wax ne ko ah, maanaam santal sant yàlla sant Kéba. waaw ah. maam Cheikh bu may dégg. waaw sant yàlla sant waa tax na fi mu ne nii. Ah, eh, mag du moom de man la. <laughs> du mais maam sama PDG la nag Kéba lu leer laa léegi man man la. sama doom. yaay maayu xale yi man maay sa yaay lii la demee léegi. bu leen ko dégg de <laughs> bu leen ko déglu. <laughs> alors c' est intégration sama dugg Jëri Ngoné mhm. euh, li ci gën a neex moom mooy Jëri Ngoné dafa am patience ah. mu nekk nit ku baax moom maam Cheikh. yaru aussi. loolu sama musicien gis nañ ko ci moom staff gis nañ ko ci moom dañ ba ko bëgg yàlla nañ ko gën a bëgg et puis collaboration bi damay ñaan la lu mën a xew moom muy mu continuer parce que nit ku baax la et que je l'aime trop bien et il m'aime trop bien. sa famille aussi pareil mais moom dañu yàgg du léegi nii léegi lay doog feeñ na rek. moom yàgg na mu ñëw di jàpp ba nga xam ne boobu dara amagu fi. Hmm. dara xewagut. moom autant bi muy bi muy jàppati bi ma temps mi nii ñu bari danga kuy Keba muy def délégation bu rëy ñoo am ay waaw ay ay valeur. Hmm. di leen indi ci ba di ma jox xaalis bu baari ah ay soirée soirée pendant des années loolu yàgg na mooy commencement. d'accord xam nga commencement dafa métti. boobu la jëriñ nga ni jàppale Kéba yàgg na ñenn ñi nag fekk ñu xamuñu mais ñi ñi ma daan baal si au temps commencement xëy na sax ñu fàtte ko duñu am duñu duñu xam ne moom la parce que moom il passe inaperçu. tout à fait délégation bi ñu àndal moom dafa nekk ñi ku baax. ku neex a àndal liggéey nag. ku am yéene ci man. te yéene boobu maa ngi ñaan suñu borom yàlla na ko suñu borom. mottali te téye ko fa te dëgëral ko fa lool. parce que man tamit dama ko yéene parce que daf maa defal taraanga ba tàyyi. d'accord te du loolu du tey de du jamono yi de. mais nag moom maa ko may buzz. jox buzz bi yàgg na. d'accord léegi nag ñu ñu génn ci cadre maam Cheikh bii may laaj xam naa mooy avant dernière question bi wala. posé la ne voilà voilà euh, ñu bëri dañu ne parce que bii dama ko dégg personnellement. li nga wax ba jàmm la. mais loo may loo may freiné Keba. charme bi ngay bàyyi. mais yow yaa ngi nii yow nag may charme. Ah mais oui mais Kéba il faut qu'on arrête. non bu ko nëbb. ok après ñu après ñu la ko ah. après ñu la ko Sacha non <laughs> après ñu la ko charme moromam. ba xam. parce que yow bu yaa ngi biiju. rek leen waaye damay woo doon jéego de. déedéet déedéet baal ma alors Kéba ñu bëri dañu ne. Euh, Papa Thione bu mu gé bu mu dëddoo àddina. parce que nee nañ Papa Thione la waxoon euh, euh, bul bul teel a way je sais pas nag xam nga wax ji tout le temps day bari. dañuy bëgg tout le temps explication man personnellement ko su ma déggee dara damay bëgg su ma toogee nit ki ma laaj ko ko ñu bari dañ doon wax ne Papa Thione daf la doon wax ne bul teel woy sa heure way bu jotee rek boo woyee sa bidiw dina dina dina fenc est-ce que loolu mën nga ñu ci wax lan moo ci am clairement. waaw euh, moom euh, dañ koy ñaanal suñu borom euh, moom ñam fa fekk ak ña ko fa fekk yàlla na suñu borom xale àjjana firdawsi on a perdu un grand homme un baaxoon ci surtout ci ay mbokkam mais ci ay jàmbur ndax lu bari lu baree bare bari ci ay xaritam ay wóllëre ay jàmbur ay inconnu sama loxo bi la doon jaar. waaye hmm. donc moom. nañ ko ñaanal suñu boom rek moom yàlla xare ko àjjana firdawsi àtte ko ci yërmandeem ak bépp jullit nag foo mën a tëdd te nga génn àdduna rek ñu ngi la koy ñaanal ab coon mus mus woon bëgg man ma way d'accord wul ci man man maa mujjee ñëw à ci à part Mapenda Assane Ndiaye mi sax papa coon bëggul woon bëggul woon Seck ak Keba ba ci waali Papa Thion bëggul woon ñu way surtout ak samay samay grande sœur ñoo xam dañ mënoon way hmm. ah à part yaayu Benjamin bi doon ànd ak euh, Thion ci temps xalam. ñu des ñëpp ba ñaar ba ñett naroon nañoo way Thion moo woon. cause bi la woon parce que xam nga Thion dafa daj dafa ci way loo xam ne ba découragé. ci ay métit ay ay ay gàllankoor ay nattu ay. gas kàmb ay xam nga. xam nga est boobu ñu wax showbiz. wala wala ay wala wala ay buzz waaw ah, foofu laa jëm nag. wala wala ay buzz xaw ma. waaw mais bi mu demee ba xam ne amul pexe man mi nga xam ne maa mujjee ñëw bien avant Wally euh, def na tout pour ma bañ a way mais après bon salaam salaam Diallo. moo def tout man ba tey ma nekk waykat gannaaw yàlla. salaam salaam Diallo moo ma def woykat. comment ci nan. moo ma forcé pour ma woy. d'accord man j'étais footballeur mosuma xalaat woy man dama mënoon football ba léegi dama mën football. gars yi yi man daa football de xanaa kay tànk la ñuy wax ba xam ah, ci micro yi xanaa ngay football football mais waaw ah, waaw. waaw mais mais waaw am nga mais. ba tey non jeune talent moom biyee boobu moom. jeune talent moom yow yaa ma ne sax footballeur ah. waaw bi ci way bi mais jeune footballeur. waaw ba ah, nañ mën ci jeune talent ci way bi kay. waaw ñu gars yi am nañ inspiration ah. mais bi mu amul demee ba nga xam ne amul pexe. Mm-hmm. mu ne salaam euh, bàyyil Kéba mi nga bëgg def waykat Kéba du waykat. mais aussi des fois ci Sahel ci euh, boobu Assane Ndiaye mi ngi ci Thione et Ousmane. aw da forcé dama doon forcé sax dem di aw waaye donc def naa ko Sahel def naa ko Kilimanjaro ba coon amatul pexe ci lu ko salaam topp pour ma way après moom ci la bañ mais man dama jékki ci rek dafa jékki gis ma way amatu choix ba moom ni mu ñëwee soirée salaam Diallo fekk ma ci ginnaaw muy way may tontu may tontu muy way. mu lay jox ngay delloo. am na muy def am amatul choix di mun ci dara. alors jamono ji sa digganteeg salaam. nu mu mel. comme dab c'est mon mii c'est mon c'est mon c'est mon c'est ni ku baax dama naan moom bu woon moom xëy na wax dëgg yàlla dama toog fii moo ma def woykat moom Salam Diallo lenn. Hmm. du keneen. à part nag euh, parce que xam nga euh, ñu ma daan déglu ma damay déglu dama daan déglu même bi nga xam bi ma xamee xaw ma sax dinaa way mais dama tàmm di déglu et puis naa di wayantu mais taxul woon ma mën li ma mën a kus néew bien vrai que mënagu ma nag damay jéem damay jàng ba tey. ba nii nii nii. ah bien sûr xale nga xam nga boo nekkee jeune moom boo jàngee. fii ak nekk mag yow toujours yaa ngi insisté ci xale nga ak seen talanga. waaw waaw parce que mënagoo nangu woo mën ba tey. non mais kenn mënu yàlla yàlla la ko mën. ah yàlla la ko mën. Ah, foofu nga ko teg. waaw ah. foofu rek nga ko basé. ah li may wax. Kéba si charme yi may charme doo dégg. man non non non ah, Kéba rek <laughs> ma chère. <laughs> waxal ci Kéba. la oui ma laa yàlla si Salma Momadou waxal leen ci Kéba. oui ma nee na waaw Jiko waxal leen ci Kéba. Momadou nee nañ yaa ngi may charmer. mais Kéba nga nga am benn concept fu mu nii booy def yow ak waa Jéeru ngoone di def ay tournées régionales. Mhm. yoo xamante ni euh, euh, sénégalais yi dañuy dañuy bëgg di la gis am na yoo xamante ni amuñ privilège tout le temps ñi ñëw Bango wala ñi ñëw feneen ak feneen. di la gis muy mhm. initiative bu rafet. Euh, déjà yan yan yan région ngeen commencé ba pare ak fan ngeen waajal yéen tamit yeneen région yi. bon li ñuy waajal bari na li ne suñu kanam bari na dañuy ñaan yàlla kay yàlla ñu si yàlla jot jotale te ñu yegg ceeg jàmm salaam. xam nga demoon nañ fi jut Kaolack. waaw temps yële. sama dëkk macha allah mu neex lool. ak ñu accueillir ñu accueil bu nice. dañoo gëm ñu lool wax dëgg yàlla. daal daal daal daal ñuy wuy si. ci lañu enchaîné dem Njaareem. njareem ne leen ñoo waa collègue duñ leen ko yóbbul ñoom tamit macha allah mu neex lool. Mhm. léegi ci demande bi nag léegi loolu moo indi demande bi. demande bi nga xam ne macha allah encore une fois macha allah donc fi ñu war a def. bari na waaw léegi maa ngi leen di gis janvier. balal janvier sax. waaw léegi dañuy ñëw mayoo ma de. ah mais dama la may. tu fais non dama la may publicité. arrêté wala kon ma génn fii. mais génn maam Cheikh est-ce que du ma génn fii parce que li euh, pub la. yow li nga ko. <laughs> balaa ñëwee Dakar alors dama la gis le 2 décembre. yaa ngi Ngaparu. Ngaparu incha allah avec ci Anne Diaw ndeysaan jigéen ji mën góor ku baax bu ñu wax Anne jaw waaw ah, moo ñu fay xaalis bari pour ñu wëñu ko jël le 2 décembre incha allah. le 3 yaa ngi Rufisque. waaw foofu sama dëkk la mën naa ne. mën na nekk. Ah, man mën naa ne parce que foofu dañ ma faa yàgg. Euh, quand sapeur nga nekk le ko waaw quand sapeur de fils mais dama ne je te parle de dama la bëgg wax tuuti ci Tëngéej rek. waaw ak li ko war a. Mhm. ñoom dañ ma ñoom bokk nañ ci ñi ñi njëkk gëm waa Tëngéej bokk nañ ci ñi ma njëkk a gëm. Tëngéej de. oui macha allah waaw ñooñu moom amoo seen fay. amoo seen fay. Mhm. moo tax nga jëlaat le 10 joxaat leen ko parce que foofu ravin la. le 10 mooy ravin mooy ravin Guédiawaye Euh, le 16 décembre yaa ngi Mbour. incha allah. waaw. Euh, ah. le 17 décembre yaa ngi Thiès. buñ ci yàlla yóbboo. d' accord le 22 yaa ngi Dakar. ak raxu produit. ñibbisi nga ñëwaat. Ah. danga nga génnoon nga duggaat. waaw ah. d' accord le 23 nga dem Diourbel. Diourbel neexoon na xanaa avant. moo tax ñu dellu. moo tax ngeen dellu. le 24 nga delluwaat kaw la delluwaat rek. bu xam nga bu neexoon duñ dellu. doo leen dellu. waaw cinq nag nga ne da ngay dem Louga. pour pour une première. pour une première. na. mbàcc ah. mbàcc rek. d'accord le 31 ah. décembre. nga ne nag da ngay tëj. ànd ak Chacha. ànd ak Chacha. Ah. ñëw Dakar. non tëju ma de. tëjoo. des na de. mais fii nii fu mu nii. yow lii nga amagum fii la maam Cheikh yab ak man. lii nga amagum maam li des non li des ko côté. Ah. te war ko côté moom dafa war jox lépp rek. ah mais vraiment. am Cheikh tamit ah, la privilège bi. waaw wax rek. mayoo ma dara nag itam ah dama laa may. Ah. <laughs> waaw léegi yow moo nekk euh, euh, avec euh, dama ak maam Cheikh ak Jéeri Ngone. mais ak Bijou Ngone aussi. Mm. dégestive la incha allah nekk soirée dîner de gala. super donc xanaa ban ban nga bàyyee. mais super. j'ai mon bac plus 5. baat plus. plus 5. waaw. Hmm. yooyu xamu ko. ah mooy master 2 laa am. master. 2. dama dégg yooyu rek waaw baax na. d'accord alors Kéba bi may tëjee nag mooy. xaaral ma génnaat ci. bi may tëjee nag mooy. Hmm. bi may tëjee lan moo tax jeeg yi bëgg la. lan moo tax. jeeg yi bëgg la. Ah. boobu rek laay tëjee jeeg yi jeeg la. non mais bii xam nga la bëgg. yow nga. mais dafa non non man dama jeeg. yow nga ndaw laa deux ans deux ans. non jeeg du xasee woon xale jeeg nga. man dama jeeg. la moo jeeg voilà jeeg nag mooy ci man sama xalaatu bopp sama xalaatu bopp personnellement grande dame yu mag a mag mag yi. non ñi nga xamante ni comme sa comme ça genre gi yow ñun ñoo la forcer jeune talent. Ah. mais yow xam nga ñu xool sa âge. non yéen ma def jeune talent. ñun ñoo la def jeune talent. ñun ah, Sénégal ah, ñun ñoo ko forcer fu mais bu ñu xool rapport ak âge. dafa am ñoo xamante ni dañ naan kii jeune la. Hmm. kii kii lii la. kii hmm. jeeg la kii grand la. kii yow nga ci man la. non non jéeg nekkul ci seen su ma juum. waaw léegi yow lan ngay woowee jéeg ñu waxtaanee jéeg fu mu toll nii. jéeg fu mu toll nii thème bi ubbeeku na. non ki ñu woowee jéeg. mooy sama xalaat bu gàtt. mooy ku mës a. ku mës a sëy waaw wala boog mais interprétation sénégalaise quand on parle de jéeg. Hmm. mooy grande dame en fait ñun suñu aperçu. ah bon yow. waaw man ak ñeneen. yow léegi yow ban nga ci yow. naa la man du ma jéeg. Kéba léegi ñëwal ci question boobu tontu ci bul kadaawu yi ngay wiir yi di jaru ko. Eh, waaw non non non bon li tax jéegi bëgg ma wala boog jigéen <laughs> da nga garaaw ah. grande dame yi. ah grande dame yi. waaw léegi les les petites dames. Kéba mais tamit est-ce que sama question doo ma ci tontu yow ñëpp la. a wax man dama non non que lii daf ma eh. dama ne la ñëpp dañ la bëgg. macha allah mais jéeg yi dañoo am seen part spéciale. Hmm. jéeg bëgg Kéba la. Thione Seck dañ jéeg dañ ko bëggoon noonu. torop n'est-ce pas. waaw waaw xoolal ma Thione Seck rek. ah ojo ma Thione Seck damay xoolal Thione Seck Assane Ndiaye Mapenda xam na. non non ak yeneen waykat yi ñoom Youssou Ndour Baaba Maal Ismaël Lo Omar tout ça Aliou Mbaye tout ça. ces gens là. jéeg yi dañ leen di bëgg. attends mais c'est normal jéeg yi xanaa ñoom bëgguñu lu baax. non ay waay ay waay kee ba ma def nii. jéeg yi dañ maa bëgg. waaw parce que yàlla moo ko dogal alhamdulilah sant yàlla. waaw waaye sa classe gii. ñi nga mag. ak yow ñu la mag. noonu lañ la bëggee. dañ maa bëgg loolu yàlla def yàlla def na mais plus précisément jéeg yi alors Kéba looy tëjee. xanaa xanaa jéeg ji. ah c'est ça. c'est ça la léegi ñu wax ci grand théâtre bi nag ma may la boobu tamit dafa mel ni dégg naa ci wéyu bëj yaa ngi ci yaa ngi waajal grand théâtre waaw incha allah rabbi incha allah ah, loolu nag dafa nekk xam nga loolu nag tamit dafa bokk ci demande yi demande bu yàgg sax. Mm. xam nga yàlla moom ah, nit ki yi nga bëgg rek mais yàlla moom mooy dogal. tout à fait. donc demande bi yàgg na lool lool lool ba ndeysaan découragé am mais ci ñenn ñi des fois ñu. pour relancer waat ko. tout à kañ kañ grand théâtre kañ grand bu ñu ci yàlla yóbboo le 18 février la incha allah. 18 février le 18 février. Tapsen waaw Tap Tapsen ak ñoom euh, Télécom. ñëpp ak ñan. ak tic pic ak ñan. son bu construction. <laughs> son bu waaw. <laughs> Tap Tapsen. Nouroula Jus Nourouba euh, Jus Nouroula. Thiel Samos Thiel Samos. waaw pour perdre 10 kilos. Aliou Keba ñu bala xanaa commencé bi nga naan yàggut yow ci perdre ko de. ok. kon merci di sant encore une fois di wax merci beaucoup. Euh, bi may ñëw boobu dafa fekk may doog a yow. mais bi may egsee xam naa ne. macha allah am naa contentement ak équipe bi ma àndal. nee naa la ma ne surtout samay musiciens staff bi ñoom ñëpp ah, dans l'ensemble. Mm-hmm. wax dëgg yàlla di wax merci beaucoup. mais aussi merci beaucoup à Babacar Diaspora. mais merci beaucoup à Chacha. Chacha et et sa yaay. ah yow bu la sama doom yi jàppee nga xam lépp dëgg la. ah mais ñoom il faut ñu xam ne yow yaay papaay àddina il faut man tamit nga may ma loolu. sama doom yi mën la jàppee di baax ci yow de. te nee na man maay seen maam. su ma génnee fii léegi ñu ne ma mais <laughs> merci beaucoup Allez, nit ku oyof. jërëjëf nit ku baax nit ku sénégalais yëpp bëgg. merci et loolu moom comme ni ko ñëpp waxee rek euh, ku ku xool ci moom doo découragé ci àddina wax dëgg na xëy yàlla. Ah, yaa ngi ñëwaat seen talent bi waaw loolu la.